am ñu gis jëfëm te gisunu jëmmam ndax bëgg gum bëgg nak réew mi koku moy kan président Dora Gueye nunguwuma ñu taccu ndax war may dëkk bi waye Dora mom, nañu ko fi taxul nak ku na fi taxul ndax ay la nak ah président Dora Gueye nak ku ko tuddu tuddu social ku ko tudd tuddu développement muy ko xamni ni réew mi rek ko ñor xippil xol li fi maki def mu yabal nak coordinateur bi muy jëmm ji nga xam ne am yar lool am teggin boolewul dara ak i wax kooku mooy Mamadou Ndiaye mi ngi nii koordinateer xippil xool li fi mag def mi ngi nii toog kon nag ñuy wax monsieur Doro Gueye ni ko ndimbal li muy def ci màggalu Touba gii kon na ci bàyyi xel borom sareet yi ci ceeb boo xam ne dana dem ca kër ga ak ceeb boo xam mën a dimbali Sénégal ñu wax monsieur Doro tamit ni ko xam nañ ni ñoom ñi ay procès la ñu am mooy ay procès financement yoo xam dañ leen war a financer ndax sareet yi bari na ci ñoo xamee ni ay nit ñoo jëndi sareet jox leen ñuy dawal ñu di ca daw ay fukk ak juróom te loolu ku ca bëgg tabax kër bëgg caa yor sa soxna bëgg caa yor sa njaboot problème la mais bu leen dimbalee ci ay financement ñu financer leen ñu jub lan identifier nañu seen bopp am nañu ay garage am ay coordination su ñu amee financement ñu di leen financé borom sareet bu ñu financé mu jënd ab sareet di daw di verser balaa déwén a jot dana mën a dimbaliwaat ñeneen ñu nekk ci ginnaawam kon loolu yi ñu ngi koy wax monsieur Doro Gueye monsieur Doro Gueye nag bu leen jàppalee ci lii ak comp ak seen projet financement yi ñu jàppale leen ci beneen bi ci doon quoi seen garage yi tamit dañuy soxla suuf malgré mairie bi mi ngi ciy def li mu man waaye ñu bëgg it ku leen koy sëkkal seen garage yi tamit dañuy soxla yoo xam ne daf fay nekk nu man di ca wëgg ndax dugg ci kër di wëgg saw fas boo demee del ci waat borom kër ga man naa am lu ko naqari ci yow maire mi ngi leen di sant di leen gërëm te nee na liggéey bii nga xam ne moom ngeen fi liggéeyoon daaw dama fekk si woon ko seere ko dafa am lu rëy lu mu def ci màggalu daaw ndax sareet ku na xam ne ni ko arrêté interministériel bi waxee dafa war a am signalisation yu leer ngir bu guddee mu mën mucc ci accident te sareet bi bu muccé ci accident ñi mi yàpp dañ ci mucc coche bi day mucc waye mala bi day mucc ñu seetlu ne at yi wess accident yi da doon bari lol ci guddigi magal ñi xam nañ ma man euh, domaine sécurité daf ma intéressé magal presque 24 heures sur 24 ma ngi xol li nga xamne mo jëm ci walu sécurité nit ñi mais biñu défé suñu constat magal bi jitu daw accident yi doon am ci sareet yi daaw dafa wàññeeku te bi ñu seetloo li ko wàññi mooy gilet yi nga xam ne mayoon ngeen ko sareet yi tegoon ko ci loxol président Pape Thiam kon mën nañoo wax ne door a géey mi def loolu ak yéen ñi ko àndal ak ñii mën naa ne yéen tabax ngeen seen këri na ndax ak yu ko jiitu ay nit dañ doon accidenté di faatu ndax du ñu am luñ leen di ràññee ci guddi gi kon yéen bu ngeen fanqee loolu daaw ba ay nit ñu baree bari ñu waroon na faatu ci loolu waroon na damm waroon na am ay blessures yu garaaw ñu mucc ci kon mën na ma wax ne tabax ngeen ay këri àjjana yu baree baree bari waaye non seulement ñun ñu ko àndoon ak yéen euh, tabaxalal ngeen ay këri àjjana kon loolu monsieur le nee na mi ngi leen sant di leen gërëm waaye di leen encourager di leen wax itam ñii ngeen ñëw ay njabootam lan doonul itam njaboot yoo xam ne. dañoo toog fa ñu nekk rek mu di leen jabootoo déedéet Modou mbay Ndiaye wax na ko ñaari conseil municipal ci transport Touba yëpp ñoom ñoo ko am ñoom rek ñoo ko am loolu nag bu amee dafa am importance bu mairie bi jox ñi nga xam ne ñooy waa transport public mais nag ci seen taxawaay aussi ndax kii bii mooy deuxième mandat Seydina Ousmane Sall bii mooy deuxième mandat bu fekkoon ne seen taxawaay am na nu mu demee wala jëru ko kon ren kenn du leen renouveler dañuy jël ñeneen. wala ñu bàyyi secteur boobu dem jël ci beneen secteur waaye secteur transport automobile moo am importance boo xam ne comme ni ko Mourou Mbaye waxee li ëpp ci askan wi ñoom ñoo leen di déplacer ñoo leen di yóbbu ñoo leen di indi fi gën a sori ci dëkk bi ñoo fay dem yoon yi gën a naqari ñoom ñoo fay jaar kon tey it ñi gën a néew doole ci dëkk bi ñoo leen di transporter bokk itam ci ñi gën a néew doole ci dëkk bi kon danoo mat a jàppale kon dooro bu dee yëngatu ci social vise secteur transport automobile dama wax bu yoroon fi di tiire jam na sant nag yéen ci acte bu noobul bi ngeen def ndax mënoon ngeen a jël seen lii Sénégal yaatu na ngeen xool fu leen neex ngeen yóbbu ko fa waaye dëkk bi jaral gum leen jaral ak nit dëkk bi ak sëriñ bi moo tax lii ngeen def ko lii nag deful leen ko kenn seen bopp ngeen ko defal ndax sëriñ bi moo ne lu waay yor fu mu nekk lu mu yàgg yàgg yàgg yàgg Tuubaa la jëm si kon lu waay yor te man koo indi Touba bu la fi kenn jiitu du samay wax kon bu ngeen yoree lu baax am yéene andil ko waa Touba seen bopp ngeen ko defal sëriñ bi yéen la ciy fay ndax yéen a jóg engagé wu pour dem xel koom liggéeyal sëriñ Touba te lii moog dem xel koom ñoo yam ndax néew doole yi nga xam ne dañu néew doole ne ci dëkkub sëriñ Touba bi di liggéey nga ne man li ma am mu néew mu bari ci sama tur gis naa ne bu ñu àggee ci événement bi jafe-jafe bii daanañ ko am ma fexe. ci te mënalu leen ko seen bopp loolu danañ leen ci sant mais fayu sëriñ sëriñ bi lañ leen di booleel mu fayal leen mu fayal leen boppam ndax li nga mënul ku la ko defal def ko noo deful kenn kon na xam ne lii sant nañ ci ndax daaw bi ñu koy def àgguñu woon fii ñu agsi tey ci diggante bu gàtt lañ ko def waaye dëkk bi yëpp jariñoo woon nañ ko kon nag liñ leen di yóbbanti nga xam ne kàddu la yoo xamante ni mbooloo mi ñoo ko moom su ngeen demee ci seen kilifa na tàmbulee ci yéen mooy soxla na ndimbal ndax dañu neo doole te neo doole gi ñu yor nak dimbali wuñ ndax bu ñu dimbali woon dañu passé fi ñu nekk donte yalla ngi ñuy dimbali nak ndax yalla moy dimbali ñep waye kenn ku ne sañ nga talal sa loxo ci ki nga mo ki la tané nga ne ko dimbali ma ñi ngi jëm magal touba jafe-jafe yu bari dañuy arrivé ci magal gi te fi seen kàddu joti ak fi seen loxo joti suñ joti wu fa sun loxo fa kon li ngeen def sante nañ leen ci baxna waye topat leen ci ginaaw ngeen lu ngeen ñu gëna nak na ngeen xam ne naw nañ ko fonk nañ ko te ñu ngi koy xaar ci yéen ñii daal ku leen dimbali yàlla dana leen fay ndax dépense la ñuy daw ak addiya te itam wax dëgg yàlla ñi ngi dimbali population bi man de yaakaar naa ne bu ma doon conseiller état dinaa ne ko jàppaleel saret yi nga xam ne ñoo ni ci Touba ndax bu ne damay daa toog fii ne dinaa fexe ba créer ya nangam ci employé ci Touba tey ma fekk secteur bu mel ñu organisé wu ba mel nii di demal seen bopp ku xëy ñibbi këram kuy dimbali dimbalil kooku mais boo fekkee jal bu tege nga juuraat suus di ca dolli nag dafay mel ni da fekk lu jekk nga di ko def da ngay fekk fu dara néewut nga def fa dara te nun soxla nañu dimbal dimbali danañ jël te ku ñu dimbali nag danañ ko wax ba ñëpp dégg ko asalaamaaleykum wa rahmatulah kon ñu lay xamal soo delloo ca kilifa ga nga xamal ko ni su bëggee dominer Touba na démarré ci nii Touba ku ne ñëw na fi mbër mu ne attaqué fi ñu ne attaqué fi politicien bu ne mais ñii moom dañ leen di fàtte dañ leen di laisser en rade te bu ne la trente mille dañ naan la trente mille yin estimé dañ koo tënk de dañ koo estime danoo am fulla nag ci seen fier ci nii ñu mel gis nga saa soo leen waxee loo leen loo leen defalut noppi nga leen a gisati kaw suuf moom doo leen fekk nag fenn foo leen wërta fekk du tem foo woo gis leen fulla ak faydaa leen di tax a jóg ak loolu yaakaar ni amal na leen njariñ ci seen kanam kon ku bëgg avenir ay jeune jëlal ñi ñi ngi ci bari na fi lool ci biir ñoom ñi tay liñ la andil pàcc la buñ jël ci benn roq rek andil la ko la des kenn xamul nu mu toll te la des ñee leen yilif kon daal li ñuy wax mooy li ci ëppoon solo ñi leral nañ ko ndoy mot na li ci des ñu xam ne daal askanu sarate ngi nii Jambar na nga leen mën a Bamba ñi nga lay gérer bu baax ak ñi nga xamanteni ni ñom nga andal muy sa natango yi parce que ñom ñep xamna ma leen di ñaanal ci ñew bi ngeen ñew fi di am ab yobante bo xamne dama koy tek ci sa loxo pour ki nga xamanteni ni moy doora geey gis nga li muy def ni ci Touba di def ci charretier yi gaay wax nañ ko mëno fe nek di répété parce que wax ju bari day andi wax jo xamanteni ni daanaka kenn dootu ko mëna dégg fim jam Ousmane wax nako fofo foofoo baax fekk ña gëna neew doole nga ñew dal seen kaw bu doon ab dayo lay wut wala mu doon wut koo xamante ne nii daa bëgg ñu gis ko wala mu doon wut koo xamante ne nii tey dafa bëgg manoore du ñëw fekk transport hippomobile ñu gën a néew doole ci dëkk bi mu ne ci ñoom lay jaar seen kaw cérémonie bii ñu def nii bari na ñoo xamante ne nii bu fekkoon teene tey demewu leen seen xel wala seen xalaat mën nañ koo defe ci ñeneen yeneen i kilifa ñoo xam ne ñoo koy xëcc dem defe ko fa waaye yéen ngeen ne man day dara soxalam dooram dara soxalu ma lu ma ñi gën a néew doole ci dëkk bi ñoom lay dem dem def fa cérémonie bi waxtaan ak ñoom jox leen ay gilet pour seen wàllu sécurité sant nañ ko bu baax gërëm nañ bàmba de mënu ma wax parce que sama xol moo sedd gëmal ne door Doro Gaye ñun ñi nga xam ne ñoo nekk fii tàllal nañ ko loxo ci lépp tàllal nañ ko ci loxo ci lépp nag am na yoo xam ne waxtaan naa ci ak Serigne Modou Mbaye wax na leen ko àgg nañ leen ko ñii dañoo soxla ku leen jàppale Bamba parce que dañoo bokk ci askan wi nekk ay gor nekk ay liggéeykat yaakaaruñ lu may liggéey jàng ba ñëw war a liggéey ngir tekki kese moo leen fi indi ñoo ngi ñaan képp koo xamante ni mën nga leen di jàpp rawatina Doro ñu am yaakaar ci moom nañu jàppale bu baax a baax. xam nañ ne dooro ci social kase lay dox xool fu président yeggul mu yeggal fa jëfam xool lu président war a def te jotewu fa mu defal ko ko xool ku nekk ci mu dimbali la te yàlla rek tax mais dafa am beneen mission boo xamante ne ñun dinañ jël engagement bi fii ne association bii nga xamante ne moo tënk charrette yi. ñun président Macky Sall la àndal moom la ñu bëgg te ku bëgg président Macky Sall war nga koo wax fan la mbooloo mi nekk fan la askan bi nekk lan lañ soxla mu fagal leen ko ndax looloo tax ñu teg ko ci bopp réew mi kon jàpp naa ne lii ma fi dégg mu nekk doléance ci dawalkatu sareet yi damay interpeller directement ki nga xamante ne mooy le ministre du transport man Faye saa yu màggal jotee dinañ gis ministre yi di ñëw Touba di saytu ci secteur yu bari mais dañ koy ñaan ren moom ministre du transport su ñëwee fii Touba mu woo ñi nga xamante ne ñooy dawalkatu sareet yi nekk plus de mille membres soo ko multiplier par dix mën nga jàpp ne mat nañ trois millions wala trois cent mille membres kon ñu mel noonu soo jugee président yabal la ci dëkk ngir nga xool lam fa war a faj ngir faj ko je pense que waroo leen jéggi da nga leen a war a boole ci li ngay def kon suñu fi jugee dem ndakaaru dinañ continuer lii nga xamante ne wax nañ ko fii pour que ministre transport lépp lu mu leen war a mën a jàppale ci màggal gi mu jàppale leen ko ñun nag waa plateforme xippil xool jàpp leen ne lii nga xamante ne wax ngeen ko fi muy ñiy ñëw war a dund wara ñëw ci màggalu ku tedd ki defaluñ ko ñooñu defaluñ ko suñu bopp mais askan bi lañ koy defal ndax ku jàpp ci liggéeyu Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul def nga li nga xamante ne moom nga war a def te màggal gii kat lu ci nit def lu mu néew néew néew néew déwén dinañ la ko fulal ay junniy junniy junni kon li ngeen yaakaar ci ñun muy que ngeen am ceeb am nag am bâche boo xamante ne ñii ñëw dinañ fa mën a dal ñun waa plateforme xippil xool dinañ leen ci jàppale dinañ ci ànd ak yéen ba ñii ñëw incha allahu rabi seen saafara faj dañuy demandé waat. di lancer un appel ministre transport li ñu wax daf ñu yegg suñu xol parce que dañoo bëgg président di am ndam fii ci Touba suñu jaaroon fañ doon war jaar lu mel association charrette yi soo leen defaloon lañ leen waroon defal kon résultat yii ñu génn gëm naa ne du am ndax ñii ñooy mboolooy Touba kon ñoom ñi nga xamante ne le président Macky Sall tan na len tek len ci bop ministère yi nañu bayyi xel mbolo mi nga xamantene ci gouvernement bi lañ yaakar ku len accompagner pour que li ñu jël financer ko seen bop ndax fi ku fi yor sareet du banque mo lako jox ku fi yor sareet du DER mo lako jox ku fi yor sareet du ben structure de financement mo lako jox mais da nga ñak liggéeyal sa bop jënd sareet ngir yor sa njabot kon soo damay dimbali askan soo damay dimbali ndaw ñi ñooñu ñoo jiitu ci ndimbal li nga xamante ne moom nga war a def ndax danga nga leen a fekk déjà ci li nga xamante ne ci lañ war a nekk kon lépp lu ñu mën ànd koog yéen dinañ ko xeex ba incha allahu rabi ni ñuy accompagner yeneen secteurs yi nga xamante ne ñoo yor développement dinañ ko accompagner secteur charrette yi loolu ñun suñu combat la dinañ ko porter ànd ci ak yéen ngir ëllëg suñu taxawaatee fii ci Touba. ñu ne le président Macky Sall am na fi ndam te su fi amee ndam yéen ñii kat yéen a mën a tax ñu am ka ndam Touba la ñu nekk fii suñuy sang ñoo fi nekk ak suñuy sëriñ ñoom lañu yaakaar àdduna ak alaaxira waaye li nga xamante ne moo jëm ci politique population bi ak askan bi ci ñooñu la dépendre mooy ñi nga xamante ne ñoo fi nekk dëkk fi yor fi ay njaboot yor fi ay doom yor fi ay soxna ñii ku leen jàppale ci li nga xamante ne moom lañu bëgg jàpp naa ne su leen président soxlaa du leen ko wax ñaari yoon ndax Touba ñu gore képp fa fi ne kon ñu ngi leen di santaat di leen gërëm di ñaan yàlla ni ñu ko defee ren ñu defee waat ko déwén defee waat ko ay at yu bëree bëri bëri te bii yoon suñuy ñëw ñu rangale ay nag rangale ay tonu ceeb rangale lépp loo xamante ne charrette yi dinañ ko mën a soxla ngir mën a màggal ci màggalu jàmm waaye nag.

221, une autre vision de la télé.